tey kay moom sama gars yi yéen dal dalu dalu leen rek nee naa leen temps damay suul damay suy bale na seen xol sedd jarul ay nekk fii di yuuxoo ay kiiki nangam man su may wax sama ful la kenn mënuma ko tere wax ay affaire de saaga yi nii ay affaire de kii nii nangam oh, non non dama lay bloqué ndànk rek nu avancé billaahi tey moom ku fi génne loo xam ne que ma gis ko ni lu ma neexul rek man damay bloquer nous avancer c'est même pas une histoire de nekk fii ki ay nangam tey moom damay suy bale ba mu saf-saf suy bale moom tey moom da koy dal bu baax tey ñu bëri dinañ génn page bi tey y trop de cafartan ici page bi j'ai laissé cette chose la trop trop trop bamboulée y a trop de cafards qui sont infiltrés maintenant mais comme nu ma koy waxee rek maanaam maa moom sama page moom sama bouton moom sama baaraam bi je vais vous nettoyer bien bon léegi ça avance quoi euh, xawma muus ndiay tu galvades trop ton culture xawma ta culture Moussa il faut pas trop croire ce que tu entends ou ce que tu prétends. C'est funny ça. C'est funny. Je n'y comprends rien. fii lu ngay wax nii est-ce que lu ñuy wax ni c'est affaire de entente la c'est c'est compliqué hein l'Afrique est vraiment compliquée hein c'est même compliqué de développer quelque chose là-bas jamono jii nii Afrique c'est même développer même développer une patate en Afrique ça te ça te rend même à redevenir une patate c'est compliqué parce que kii lu muy wax ni man j'arrive même pas à le cerner et à le comprendre wala il dormait quand on explique wala il me parle il me parle d'un truc imaginaire qu'il se prétend dans son esprit parce que gars yi tamit souvent dañuy toog am seen benn scénario si bopp bi di ko xalaat ba pare bëgg nga jouer ko toog ñoom xamul son mais ils te le font jouer déjà dans le esprit quoi parce que kii lu muy wax nii naan ma entendre ak kii nous on parle des vécus nu on parle de loo xam ne ni que c'est du palpable nu dund on parle du passé donc quelque chose qui est passé pas une histoire de entente loo xam ne que nous soriwuñu sax c'est dans notre génération nu ñu dund ko on l'a vécu nous tous donc quelle entente qui a entendu quoi et e ce qu'on a entendu comment on a prétendu quoi nu on parle d'une vie terre à terre on fait une comparaison comparaison boobu noonu nag ngay wax nag nii ñun defuñu ko ci ay film hein defuñu ko si ay bic defuñu ko si ay kaye toog nii rek di seetaan télé di naan woy États-Unis de moo wala gën a baax Sénégal lii ma gis si télé bi nii wala lii non wala toog di wax si France wala toog non on parle en ayant tâté tous ces pays on parle par expérience waxunu nii nii rek non bu si nekk duñ faa wàcc toog fa dund fa xam lu ñuy donc on peut se mettre aujourd'hui quelque part s'asseoir e faire ce qu'on appelle une autobiographie, faire une auto-analyse e maintenant le mettre et le mettre en avant léegi loolu noonu nag ku dem ba am lu mu si gis ça veut si way bi wala si yoon bi da nga say gën a ñaaw surtout si yoon bi da nga say gën a ñaaw mais ça kenn mënu koo tere benn mbindeef maintenant nag léegi si biir yoon bi si tu n'as pas d'expérience essaye de te trouver comment t'accommoder wala tu te tais parce que tout c'est pas tout le monde qui a eu cette chance àdduna moo demee noonu Mais ceux qui ont eu la chance doivent faire connaître à ceux qui n'ont pas eu la chance comment ça se passe. Nous, depuis le départ, nous, si on avait eu cette chance, on va le faire plus professionnellement et avec un esprit plus posé parce qu'on aura déjà un bon briefing de là où on va. Bah, nous, tout ce que nous parlons, c'est pas des... Non et encore une énième de fois fii ma toog c'est mon vingt-deuxième pays du ay affaire de euh, non donc quand on parle on parle pas seulement en tant que des personnes ñu toog Sénégal di seetaan Novelas wala di seetaan TikTok wala di seetaan Canal Plus wala di seetaan ay ay ay film di expliquer non duñu ay nit ñu jàngee anglais académie wu Sénégal wala jàngee anglais Gambie non donc su ñu demee ba ñu am lu ñuy expliquer c'est par expérience de ce que nous avons vécu donc s'il y a un larbin wala un corps qui nous parle des choses qu'on ne comprend man ji what the fuck pourquoi vous copiez la politique occidentale nu bëgg koo yóbbu Afrique Macky Sall politique bu muy def yëpp lu muy forcer fan lay xoolee du suñu hein boo forcer na nu train du nu forcer yeneen ak yeneen fan la koy xoolee du suñu léegi nous on vous parle des vraies choses nag léegi. pas seulement le copier-coller mais on vous parle même la culture des façons de se comporter lu tax ba ñii tey jii nii tey nu toll fu nu toll du si wax bi kese du si wax bi dafa am ay doxalin am ay façon am ay accoutrement am ay tolluwaay yu nu ab ñoom yu nu jëlee seen bopp tàmmal ko moo tax tey ñoom fii nu nekk seen dëkkee yi ñu koy mën a di xool di leen roy bàyyi nee naa leen fii ba millième fois soo duggee ministère ak sunu ministère yi rek nga xool nu nu toogee nu ñuy liggéey mais da ngay jàpp sa xol Baye Fall fii dugg si bureau yu mag yi doo dégg picc yoo buy naaw sa mën nga koo dégg wañ buy taxawaalu si biir mën nga koo dégg ku nekk nekk sa da nga naan sa mii ñii est que ñoo ngi liggéey wala liggéeyuñu tellement ni que le bureau est calme chacun est place ku nekk nekk sa danga nga naan mais def lu fekk ñoo ngi liggéey heure liggéey heure liggéey heure génn heure pause la gis ku nekk romb la kii dem jëli lu muy pause lekk ki trente minutes la trente minutes poos trente minutes waaye Sénégal ngay pause booy deux heures dem fii ba xolal waaye yow entre pour lijjanti looy lijjanti ñëwaat pour def encore na deuxième service kenn xamul lan la dugg fa mu mel ni tulleeg marle takku sa buun saañ ba réer commissariat yi ministère yi hôpital yi clinique yi da ngay dugg désordre anarchie arranger sax ay ni teg leen ordre rang rang ay pas i faut que nga yuuxu dóore fii kenn du arranger rang kenn du ordre c'est pas de la magie c'est pas de la magie organisation moo tax lu nu liggéey sa bien à l'heure da ngay dem defi sa carte d'identité tey tey tey tey tey ñibbi seeg moom léegi léegi léegi léegi léegi amul ay kay déposé six heures du matin jaar fi ngoon suba nuyu non soo bëggee sa bul dem carte d'identité soo xasee ba déposé soo réeralee sa bul dem demal online tapé dugg si site bi fay sa njëgu timbre ne leen sama carte d'identité réer na nu yónnee la beneen sa buntu kër. organisation la wàññi na ay nit ñu doon dem buuxante ji si buntu ministère wala si buntu police wala buntu nag du du du du organisation yooyu la ñuy wax su ñuy wax nag ay nit nag di tëb di expliquer ay affaire xam nga. di wax ay ay kii di yëg non on parle tey tey tey je parle de la société je parle de sunu ñun de parle kii waxuma ay affaire ah, kilifo waxuma ay affaire de kii waxuma ay lee léegi nag ku ma si bëgg a puus nag nekk fi nag di jéem a cokkaas di foore ay affaire sa waxu no sense eh balaa maa dem dinaa la ñaanal comme nu ma ko waxee rek man yor naa sama yu ndaw yu saf-sap yu tegu si seen place yoo xam ne dinaa la ko may ba pare doxantu man mënoo leen maate seen yii ngeen di def nii nee naa leen c'est ñii yen yéen ay man xam nga ña laa gën a ragal nee naa leen murit yi ne tekk yi ñoom laay sóoraale parce que maa ngi naan sama xel ni que ñii lu lu lu ma nar a def sax waxaguñu ko donc man naa sóoraale sam bopp rek xam nga mais gis nga alwaxaa yi nii boroy wax yi nii toog fii nii yàlla xam na ni que yéen laa gën a ñeme Ismaïla ma Yaasin téeméeri junni yor suba ak cent ans dimanche du ngeen defe dara ay xaju garage ngeen a ki xaju salon mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew mbew ubbee bunt bi du ngeen def dara xam naa leen bàyyi ba bàyyi defkat dëgg ba yi gaa yu affaire bi ñor dëgg dëgg dëgg gaa yu kii nii man bàyyi waxuñu de ñoo ngi toog fu ñu toog di ma seetaan di xool naan ma booy bi ne mais gis nga yéen ñiy nekk fii nii yéen a may gën a dox jom may wax parce que ne naa leen ay lâche ngeen parce que lâcheté mënul weesu amoo loo mën a tontu xamoo loo mën a tontu nga boole ko ay saaga di loolu fajul dara soo xamee ni que da ngaa bëgg am looy faj da nga koy tëj ba nga mën koo faj nga soog a jug faj ko mais seen ndar ndar ndar ndar ndar ndar gi man loolu ça me dit ni chaud ni froid ba nuy und ñun tamit di ndar ndar ndar di def seen yëfu vagabond yi yéen jugagoo leen vagabond leen yàlla xam na loolu léegi nag ñu danoo toll si beneen domaine beneen degré muy lan degré wu imaan mande rek te yàlla tax quoi ñun baanaam dem na ba nu demee ba yàlla war nu daj dëpp gi ne nu daju leen bàyyi bàyyi xoolal dara safuma yooyu ngeen wax safuma nee naa la yërmande nga ma mën a dóor mu saf ma yërmande nga may dóor may may may may melas may melastiku nga waay jub bàyyi nga may dóor ma rus di xool na laal bu waay wala gën a jubee bàyyi man yooyu laa gëm mais yii ngeen di def nii ah vous fatiguez quoi vous fatiguez billaay wallaay vous fatiguez vous fatiguez Mamadou Mamadou King déggul déggul Mamadou Mahmad xawma lan léegi xaaral ma woon la voilà sax yow ngay mën a dangaa bëgg a xool foo dugg wax sa wax sa merde ma feeñ nga bëgg balaa da ngay dem nga laaj nga laaj page bi laajagal page bi nga abonné ma mën la dugal nga ñëw nga def sama feeñ ma xool ma wan leen ku bëgg a def ma feeñ tey ma wan leen yéen tey naa nag ubbi naa ko dugg def ma feeñ kaay def ma feeñ ma wan leen ubbi naa ligne bi dugg leen kaay ubbi naa ko de ma feeñi yàlla lay xaar kaay leen kan mooy dugg comme que bëgg ma feeñ kan mooy dugg ñëw non duma ma saaga kenn mais ku nekk ku fi dugg dina dégg lu moo xam ne ni que gars yi xam nga rek foog nu àgg si loo xam ne ni que tey jii nii nu mën a comprendre duggante si benn gaam boo xam ne ku nekk xam kan mooy kan ku nekk xam fu muy toog ku fi dugg saaga dina dégg musibaam tamit mais du ma saaga kenn sama musiba mën naa kaa wax sans saaga loolu laa bëgg pour ñoom nu xam ko c'est pas parce que nee naa leen ni que bàyyi naa saaga. que man maa faj sama problème non sama problème mën naa kaa faj sans saaga te foo toog di ko déglu mu lay coqataan du ma saaga mais dinaa la wax lu mel ni xeme tafaam kuma yow yàggante neen quoi bul ma pousse ba ma wax loo xam ne ni que après de ça va te mettre en mal confortable quoi xam nga comme nu ma ko waxee rek am na wax yoo xam ne ni que jarul nu si àgg quoi day leen def ni nit ku am jom nit ku am fulla mooy nit ku mel ni man quoi man su ma rombee gis ngay wax lu ma intéressé dinaa toog déglu quoi su ma gisee ngay doo ngay wax lu ma intéressé wul ma dem quoi parce que fa ngeen forcé wu ma ma toog di seetaan quoi su ma rombee ba keneen ku may déglu mu neex mooy lool ñu ñëpp ñooy wax te ñu ñëpp ñuy wax benn affaire bi la yaa ngi comprendre Sénégal la ñuy wax problème mu Sénégal comme boog nga seetaan benn Moussa Camara nga dem seetaan benn Kayz nga dem seetaan benn Jiji nga dem seetaan benn Fatoumata Dansock ak ñeneen ñu si des ñoom ñëpp laa si bokk yemale tant que ñoo ngi wax si Sénégal ci suis la même chose ak euh, même waaw mon mon mon frère Dia waaw ñëpp c'est la même chose soo demee maam seen tout on parle même chose Sénégal Sénégal freedom mayo kii c'est la même chose ku nekk ak nu mu koy waxee rek ku nekk ak nu muy fajee problème am ku nekk ak nu muy doxee dem dugg ji marché point barre mais lan laa gën a jéppi mooy nit ku dem ba si biir këru jàmbu ñëw fekk ko fa fekkoo ñuy togg lu loo xam ne que yow nee nga neexu la ba pare nga ne yow yaay dem ki këpp cin gi ne la ni ko noonu na ko toggee nii wala na ko defee nii mooy loolu quoi moo tax rek souvent mën naa leen si vous voulez qu'on se respecte apprenez aussi à vous respecter quoi man nitu nitu keselaa doomu aadama kese nit nit ki noppam je ne suis pas parfait je ne suis pas le meilleur je ne suis rien nit la souvent nag damay génnee tamit sama at sama humeur damay génnee tamit sama attitude waaw am na yenn point yoo xam ne tamit soo fa laalee laal nit waaw yenn nit ñi foo ne ni que nag ay super homme waa waaw non non non yooyu yëpp amu si de damay def ay erreur comme ñëpp damaa dëng comme ñëpp yee damay juum comme ñëpp di kontaan di mer di ànd ak ay atmos ay émotion comme tout le monde moo tax it nag nit ñi tamit ñoom seen bopp ñoom wala di jàng tamit di respecter seen bopp suñ fiy dugg tamit bëgg ku leen respecter wala dégg fi lu leen neex wala dégg fi loo xam ne mooy loolu ñooy xam nu ñuy tegoo loolu xam Baye Fall yéen ñii di wax jël ma jël ma jël ma jël ma mënumaa jël kenn sooleen leen si page bi wala affaire yi kii ñu may ngeen di wax ni jël ma mooy lool mënumaa jël kenn soo enregistré si paa bi page bi ba ma lay gis ngay génn ba pare nga def demande ko non. Euh, ma ma Macky lu xawma Mikulu seen ay kii démocratie encaissé saaga yi non lo loolu lii du démocratie lii du démocratie di encaissé yan saaga man nu noppi loo ma bàyyi loo ma saaga ba pare démocratie ma noppi encaissé saaga yi Mikalu seen looy wax ni man ba may saaga nu may saaga dangaa dégg may wax kenn ah non un plus un égale deux nag un plus en égale deux hey man ba may saaga di yëngal di gës ku ñëw toog balaa ngaa génn dégg sa musiba ba may saaga sama page ku fi dugg sa saaga balaa ngaa génn ma jox la yóbbal léegi man maa toog nag léegi nu bàyyi loo ma saaga ma bàyyi saaga toog mais léegi ne ma démocratie non non non non li du démocratie moom laa leen doon wax si départu live bi loolu moom mooy gars yi gëm leen yàlla gars yi am leen kilifa noppi leen dem leen ngeen toog ñuy rey seen ñu lu leen di rey quoi ñu leen di def lu bon lool mooy philosophie wu sénégalais mooy la am kilifa moom mooy la am démocratie moom mooy la muñal sénégalais moom mooy yow demal toog ñu lay saaga quand on gifle sur sept jours dans l'autre jour loolu mooy am kilifa loolu moom mooy démocratie léegi ñëw nga toog soo waxee nu ne la amal kilifa waa kii di nangam te toujours sooy kaas bu nu naan la amal kilifa c'est parce que lu ñàkk kilifa moo xew ba yow nga kay ñaxtu nit ñi ne la léegi amal kilifa tamit ma fàttali ñenn ñi naan ñëwal Sénégal saaga mën na leen mais si su ma ñëwoon Sénégal di saaga sama saaga kenn du ko bàyyi xel Sénégal kenn su ma ñëwoon Sénégal ba si Sénégal samay saaga kenn du ko bàyyi xel Sénégal xam nga lu tax Sénégal ñu ma dàq saaga ñoo fa nekk senegaal ñuy saaga vingt quatre ñoo fa nekk senegaal ñu mën a def nan laa ko mën a ñoo xam ni que sept trente secondes wala une minute ñu saaga ñoo fa nekk Sénégal nit moo mënut a wax sa te génnewul saaga si gémmiñam man tey ji ni su ma fa demoon su ma taxawoon biir aéroport di saaga wala ma taxaw bi garage di saaga kenn du ma bàyyi xel kenn du ma déglu kenn du ma faale apprenti sak chaque jour nu xeex si waay car rapide ak tali bi ngir ay saaga sama juróom waaye yiwi ndeyam waaye kii di waaye yow eh waaye ma ndeyam waayow waayow loo may xoolee nii ndeyam waaye meeki bàyyi Sénégal mënoo faa def vingt quatre heures saaga nee naa la une heure de temps bu wow ngeen ko parier ñu nekk senegaal tegal ngeen parier ten taw ten taw une heure de temps te déggoo saaga fu muy jugee sax doo ko comprendre une heure de temps biir Dakar déggoo saaga amul damay dina kat ñàpp dëgg ubbi topp eh ndeem ndeem sunu ndey ñoo gën a son sunu ndey ñoo ngi si au bout de chaque mot chaque kii loo wax ndeem ndey jiri nee naa la mooy loolu moo tax nee naa leen ba sonn su gars yi di wax di kii lu ñuy wax ñoru leen du ñuy ut rek fu ñuy làqatu parce que amuñu réponse wala fuite de pour lu ñuy expliquer moo tax léegi wax gi mooy lan saaga saaga saaga wala kii kii mais ñoom gëmuñu ko paa yi lu ñuy saaga maire yi saaga yow nee naa kii ne waaye yow yi ndeyam waay oh Sénégal bàyyi sunu ndey ñoo ngi si làmmiñu nit ñi. 24 sur 24 7 sur 7 24 7 nu ko amee moo ngi si làmmi ñu ni ndey ndey ndey ndey duñ koy ubbi di ko teppi di ko dëgg di ko ñapp di ko kii lu nekk nu def ko ndey ndey ndey ndey ndey ndey ndey ndey ndey ndey moo tax ma naa leen gars sama saaga yi lu ma toll fii sax di wax moo tax mu am sens su ma ñëwoon ba Sénégal di saaga booy bu ndaw moo may ñëw sax gàgganti ma soo leen juumulee gàgganti ma ni que nu nga ko dóoree saaga bii du noonu que saaga bi nii la fa demee am na yu bees parce que si diggante bi leer na ma am na yu fa génn te amaana yëgunu ko booy bi dinañu ko léegal booy ndaw ñoo lay tegaat encore sur le diapason saaga moo tax nii di wax naa non daa damay daf may def ay ree ça m'enchante quand j'entends tanse conneries waaw saaga kii ni nanga dama naan ñii gëmuñu dara dañuy wax rek ay sóob la parce que ay saaga leer na ma ne que lu waral bu ñuy wax di leen kii saaga bi leen amul tontu wala len amul wax wala leen xamul lu ñu koy tekki week lu ñu koy tegee moo tax léegi ñu jël wax gi lépp muur ko si ginnaaw saaga naan non saaga nii saaga c'est-à-dire saaga bla bla bla saaga kaka c'est simple c'est simple sénégalais non léegi léegi nag kii nag dina neex nag expliquer Papis Badiane nga ne ma bàyyi sama xel bu may fooye saaga sëriñ si nga ma ban sëriñ ban sëriñ moo am Sénégal ban sëriñ nga may wax saaga ban sëriñ kan mooy sëriñ yow Papis Badiane ban sëriñ kan tu me de quel sëriñ qui sëriñ ban sëriñ Sénégal amul sëriñ di kan moo fay sëriñ yow yaay foowee sa xel bi yow mii Papis Badiane yaa wala bàyyi sa xel bu ngay foowee tu me parles de sëriñ de kii nan ngay xàmmewee sëriñ sëriñ gradam lan moo koy yóbbee sëriñ comment on élit un sëriñ nan lan mooy sëriñ d'abord avant que ci parles tu ouvres ta gueule koy bind si jë allez sëriñ c'est quoi quest y la signification de sëriñ lan nga wala def ba am gradu sëriñ nan la ñuy élire xam nga imaam duñ koy fal leneen ak leneen léegi sëriñ sëriñ nan jël ay nit rek parce que sant wala kii sëriñ léegi ñoom lan leen def ba mérité turu sëriñ wala nekk sëriñ sëriñ ñii xool nii nii nii quoi quoi quel sëriñ quoi sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasul mën nañ ne sëriñ parce que jaayante na sa jàngi na kii ni nanga am na lu bind na teg maam li maamu laay ah Baay Ñas waaw Buukunta Njaasaan waaw Hein? Eh? Omar Futiu Tal, ok, il n'y a pas de problème. Hein? Eh? Suleiman, Soule, Suleiman, Suleiman Bal, waaw Thierno Suleiman Bal. Hein? Eh? ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bind nañ jaare nañu ok ñoon mën nañoo sëriñ quoi mais à ñoon ñoo xam ne bind nañ am nañ au moins téere a ah, bàyyi nañ fi rajo cassette bàyyi nañ fi dara loo xam ne nit ñi mën nañ say jàpp mais yow tu de quel sëriñ tu me parles de kii quoi ku ou kii c'est marabillon la kii ku mu kii kay yow kan nga yàpp yow yaay fooye sa xel bi yow yaay foowee sa xel bi yow ban sëriñ ban kan booy bas booy bas sëriñ bas nan la nekkee sëriñ ku ko sëriñ ñoom seen bii ñoo falante nan sëriñ comment reconnaîtrons un sëriñ comment quoi ba am gradu sëriñ commandant tey duñ koy nommé da ngay jaar dangay dem armée libérée def galaadon de premier grade deuxième grade kii ni nangam ñëw génn ñu def la commandant commandant général nga dem ga nekk kii ok hein balaa ngaa nekk ceinture noire karaté wala nangam da ngay ñëw blanc kii jaune jaar kii nu def la kii nga dem ba nekk noir ñu def la premier dan deuxième dan troisième dan waaw imam tamit balaa nga koy doon da ngay doon ndongo jàng nafar nafar nafar wàccee kamin teg ay affaire teg ay kii ñëw après gay xool sa xam nu fal la imaam boo léegi sëriñ sëriñ sëriñ léegi sëriñ nan nan la ñuy xàmmee sëriñ léegi sëriñ que faut-il faire faut sëriñ yoo xam na ni que bindu nu jukki firiw nu jukki toju nu a xamu nu ba fekkeew nu ta sa kenn waxu ko gars yi ñoo ngi toog ñoom ñooy sëriñ si yow da ngay a neex rek da ngay na neex xoolal xoolal fu mu fël kii mbaam la lii laa lay wax kii mbaam nee na sa jabar doo joxe numéro bi mukk lan laay joxe numéro sama jabar sama numéro jabar à ah, quoi à faire quoi à dire ak si mais sénégalais wow c'est voilà nee naa leen c'est ça le pays ñii ñoo war defar dëkk bi nii ñuy defaree dëkk bi nii nii léegi man mbill gi gars yi comme que seen xol jeex na nee na nu maa jàpp dañuy léegi soxna si yaay booy mooy noonu rek Macky Sall tamit mii di leen jàpp di leen wulli di leen noq boobu ba léegi tamit donc saa donne la raison ça donne la raison toujours comme ma ko parce que tey jii nii soxna si ma joxe numéro soxna si liveul liveaanul waxul waxaanul duñ koo takk rek mu nekk sama ginnaaw may dox léegi ma génn ma ñëw joxe numéro nga dem nga xool ko loo koy def tous doo ko def dara wax gi mooy bëri ma cuuneel sama bopp nekk fi benn genre kon bu mel ni yow wala gën laa con sax naan la sama numéro jabar moo nekk nii génn fi nuy kii di nangam ma foog na ni que man maay guerrier wala kii nekkate man maa la gën a con maa la gën a dof maa la gën a yéeg man mii ni dem ba jël sama numéro soxna di ko joxe di ko kii te amul benn sens c'est ça le pays nii la ñuy defee nii quoi nii nee naa leen ces genre de personne moo taxit ñii rek ngeen mën a nekk ay ay ay ay taliban ñii rek takk buum teg leen parce que ça ne réfléchit pas ça ne parce que tey jii nii xam nga pour quoi ne réfléchit pas con bu mel ni man comme nu nga waxee con bu mel ni man dem nga ba mënoo jàpp nga ne jabar nga bëgg a jàpp nga xam ni que con bi con na con boo xam ne ni que mooy yow nee nga jabar nga bëgg a te yow leer la ni que yow sa dund sotteegul xamagoo yow lan léegi man soo jàppee jabar ma jàpp sa yaay nag parce que affaire bi ay jàppante lay doon donc fii arrangé woo dara connerie rek nga fi teg ñaar lu da ngay jaay koom a gën foo koo jàpp koo dem jàpp am na ku mu mën a jàpp ma loolu yàgg naa ko fee wax naa leen man ay yooyu noonu kii non da ngay jàpp sama jabar ja fexeel ba bul bul am jabar yow fexeel ba bul am jabar quoi parce que àdduna gii nii moom rëy rëy boobu noonu bul am yaay bul am doom bul am leneen parce que boobaa woo nga ma si bu bandi bi quoi bu con bi ay jàppante la amul sens amul sens parce que lu tax ma la ko waxee maak yow sunu kanam nu jàkkaarloo su ma la newee jonkonal fii da ngay jonkon yàlla xam na loolu yàlla xam na loolu te bis bu ñu si tollee nag mooy loolu bis bu ñu si tollee mooy lool mais moom ay affaire de xool ku la gën a con moom su dee moom da ngay xool ku la gën a koŋ moom nga bëgg koo xool si réseaux sociaux yi du man Camara du man Camara de ku gën a con non man du ma la mus gën a con allez c'est parti yow kuy c'est parti yow kuy allez tàmpale mooy dee naa du ma la mus gën a con du ma la mus gën a con du ma la mus a gën a yaa may gën a con ba faaw ñëw toog fii waaw sama numéro jabar ah kii nii nangam waaw demal jëli ko waaw woo ko non day ma gën la con waaw kii nii non non non du ma mus gën a con yaa may gën a con ba faaw yaa may gën a con ba faaw wax de con bi kay moom bàyyee naa la ko. man nag affaire yi dama ko gëj a comprendre dama ko gëj a comprendre la demande voilà léegi maa ngi commencé gis di comprendre affaire Facebook daf ko changé et demande yi daa mel ne am na ñu defoon ay demande mais daa génnaat maa ko xoolu loon de eh, jégalu de Kunta I don't see you bro I don't see you, eh, eh, ano my boy? My boy, Papis! Eh, eh, eh, eh. Papis boy! nee naa boy bas xaw ma kan ngay wax sëriñ ak ñan ay ñoom boy bas ngay wax ak ñoom boy kara xam nga ñoom may boy yooyu boy yooyu Kunta, I, I don't see you bro I try to invite you but I don't see you affaire bi du marqué si page bi am nga ñu bëri nii sama Facebook leen ami mais ami wuñu si page bi fii nag page bi laay live souvent su ngeen su ngeen like page bi subscribe si page bi du ma leen mën a dugal mën na noo ami Facebook mais doo génn si page bi parce que page bi maa ngi siy gis ay quelques quelques personnes yi mais du si ñuy ñëpp quoi voilà après faut que je recommence encore eh, yee boy boy boy Badiane boy Badiane eh eh eh eh boy Badiane boy Badiane boy déggul ma la de sa poil pubien yi poil pubien yi poil pubien dinañ ko arrosé quoi dinañ ko setal def si tuuti hygiène quoi xam nga rek maanaam eh, maanaam sa njaatige sa njaatige ba muy nekk sa salbe aba ba muy nekk sa salbe ay no il n'a pas fait du bon du, du bon boulot quoi eh eh eh eh eh, eh. sama digganteeg yàlla laa lay tegal yuy xam nga wax naa ko de dama ñëwoon rek pour def sama waxtaan tey waxtaan ak sama génération ànd ak sama gars yi def un petit waxtaan xam nga jéem a yeewante xel yi génne lu nekk si xol bi nu mën a déggoonto ne woon naa leen bu leen ba puus mais comme d'habitude rek yaa nga yaa yaa yaa le gens yoo xam ne ni que looloo leen neex moo leen di dundal moo tax suñu ñëwee foo jaar nu yëngal ma quoi léegi nag sun ma yëngalee nag yëngal ma ba ba yëngu ma ñamal leen nag gaa yi nag daa di siisu xam nga newoon naa leen sama gaa yi tey du ay live bu kilifoo diine gis ngeen légende bi laay bu man ak sama génération samay gaa yi ak am di jàmm wax lu nekk si xol bi waxal lu nekk si xel bi la woon toog teg amuloon waxu tarix amuloon benn waxu tarix amuloon ay kii C'était une, c'était un débat d'idées et un débat de sensations et de sentiments. mais nag comme nu ma ko waxee rek comme que taliban di yegsi nañ tamit wootante neen ñëw neen toog raconter leur maître commencé waat neen seen jikko bi wane waat neen seen yarun seen melokaan lu leen jàngal si suufu bâche yi ak nu nu mel si suufu bâche yi xam nga lu leen dugal seen bopp yi donc yeera ko tey foo leen jaar nu jox leen adiya maanaam ni ko loolu la leen sëñ bi jàngal nii la leen sëñ bi yare nii la sëñ bi def si ñoom saagaa ki diinget ah xam boog nañ def cinq minutes addiya di minutes addiya du yàq dara si waxtaan bi de du waxtaan du yàq dara si waxtaan bi parce que maanaam ni ko ay saaga rek saaga waxtaan a koy faj sama gaay saaga saaga du ko faj saaga saaga du ko faj saaga ay waxtaan ak ay fecc waxtaaj wax dajale jëmbat garab si ñun nu jëriñoo ko muus du tux su tuxee coroxaan na mbott du yey guro di solum kap non boobu maa ko faroon si peer bu xar tey de kala dax waa la wax boobu sama waay sama gaay nee naa la maatu melentaan xaw ma lan su la maatee nga maat nga nga ko doo mën a sol xaftaan billaahi melentaan su la màttee nga wokk ko doo mën a sol xaftaan day dëkkal la da ah sama gaay en du hmm. hmm. ah. tooñ murit du fen murit du wax lu ko wóorul hmm. murid du inventé de murid du inventé du sos du fen du tooñ du wax lu ko wóorul ah murid saadix nag leen wax waw waaw ah maanaam na ay julli géej moom ay dessin leen si dessin waaye am nu photo wu Touba euh, jumaaw Touba bi moom boobu moom bon inauguration jumaaw Touba boobu photo leen am mhm. sa sa gaynde gi si géej bi kii kay sa sa sëñ bi tamit si fuur bi dessin leen am sëñ bi si kaafu gaynde bi dessin hmm. tubaab bi daa fàtte andi appareil photom tout cas du fen murit du tooñ murit du seede lu mu xamul du seede lu wóorul tout hmm. cas man de nee naa leen si laajte yu ma laajte yëpp benn rek la ci gars yi di daw di esquive boobu ba léegi te laajte boobu man moo ma ñor mooy maam bi man ku ko tudd ak ku ko jullee maam bi fan la gaañoo nu mu gaañoo kan moo ko jullee xabru bii lan moo fa nekk ak lu tax nuy sàndi xaalis si ay xabru lu tax nit ku dee parce que man fenn rek laa gis ñuy sànni nit ku dee wala kii fu nu suul ay nit ñuy sànni mooy Arabie Saoudite fu sa seytaane ya te foofu ay xeer lañ fay sàndi de ay xeer ay xeer ay kaba da la ñuy sànni foofu waaye fii nag waxuma la xeede waaye lu iblis gën a bëgg leen fii sànni muy xaalis alalu seytaane ah hmm. man de loolu ku ko jullee quoi parce que wal nañ koo ñaanal de sëñ bi kooku du nga ko wala defal xalal sikkar à part lu toll ni Ahmadou Bamba xaadim rasul nga gunge ko ci këram gu mujj ah dégg naa nag ñenn ñi naan nag njaareen la wàccee liggéey ñii naan kii ah ñii laajte rek ñu may laajte quoi xam dara. demande kese parce que c'est bizarre ça tamit imaam yi ustaas tamit ak cheikh eh, yeeg cheikhet ngir yàlla tamit dimbali lenu si réponse bi lu tax nuy sàndi xaalis si xabru est-ce que dagan na ñuy sàndi xaalis ci xabru nit ku dee est-ce que dagan na di ko sàndir xaalis ay waay tontu lenu si boob au moins bi bii rek au moins benn bi sax mu tane parce que laajte yi ñoo ngi bëri quoi su yàggee sax nu réer si laajte yi nu jaxasoo si suñuy propre laajte amul ndey yi ñoo gën a feeñ ko ba léegi